koy wax alors docteur balaa ñuy xuus tuuti ci waxtaan bi dañ lay bàyyi rek nga nuyoog ñi nga xamante ni mooy mbokk Sénégal ndax nee naa inter internet yi nga xamante ni moom la ñëpp di seetaan moom nga dajale tey jii tey ñoo ñoo ñoo seet si la ci sanc bi nga xamante ni moom nga sanc ci Zac Mbao ñoo ngi lay nuyu docteur. maa ngi leen di fay fifi mhm. di nuyu waa Feeling. Mhm. di nuyu waa euh, Buzz. Buzz Dakar Buzz Actu Buzz. Mhm. di nuyu waa Guédiawaye. Eh, di ñu nuyu aussi diaspora 221 Sanelo Kenza mm-hmm. di bëgg loolu nag ci seen teew fii mm-hmm. eh, di leen jégalu jégalu aussi ci guddi gi mm-hmm. eh, du suñu coobare ko voilà di leen ne bismillah bismillah docteur ñu yàgg la fekk fële te Petit ñu gis macha allah doole bi nga xamante ni suñu borom may na la ko fa ndax boo duggee rek ci entrée Petit Mbao boo laajtee kër docteur Abdoulaye Diallo ñu tegtal la ba nga yegg si tey nag suñu borom def ñu fekk la feneen fi nga xamante ni moom nga sanc euh, mu mel ni docteur mu ngi gën a jël fi nga xamante ni mooy Sénégal surtout Dakar parce que ñëpp xam nañ ni Ziguinchor nga nekkoon suñu borom jox la fa lu ne teranga bu nekk tey ju ñu fekk la Zembaaw lan ngay ban sentiment ngay ngay éprouver instant bi bon Zac Mbao c'est c'est un local de repos ok normalement sax ça devait pas être exposé au public Mm-hmm. parce que boo nekkee un public un moment donné il faut savoir euh, raison garder nga am mm-hmm. foo xamante ne aussi euh, boo bëggee noppalu foofu ngay foofu ngay nekk ñu bañ laa déranger mm-hmm. donc euh, là-bas c'est public à Petit Mbao fii c'est c'est repos voilà c'est c'est juste maison de repos qu'on a acquis depuis une maison qu'on a acquise depuis mais bu ñu mësul wone aussi pas musul wone voilà bu ñu musul wone foofu dañ fay gis ba tey li nga xamante ni mooy modestie docteur Abdoulaye Diallo ndax sànq rek avant ñuy taal caméra yi ñoo ngi dégg ngay wax bay tudd naan bëggoon nga jëndaat terrain pour jàppale mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci village bi ñu ñëw liggéey fii ci affaire restaurant bon ñi ma xam mhm. xam nañu man je n'ai plus rien à prouver mhm. alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may na ma lépp mhm. ñaari yëpp la ma yàlla desal muy la nag lan gudd fan bon ak li ma ko ñaanoon yëpp may na ma ko mm. yëpp ça va suuru ma nag parce que am na leneen lu ma ci lu ma ci dolli mooy pont Dakar Gorée bi mm-hmm. ma tabaxal sama réew pont Dakar Gorée ma may ko état bi soo ci paree am naa dee sama vie am na réussite mais balaa pont j'avais déjà aussi ñaanoon naa yàlla chaque région de Dakar chaque région de Sénégal ma tabaxal fa Sëñ Touba résidence ak juma. tàmbali nga. kooku moom maa ngi ci te xam naa duma àgg ci pont bi fekk loolu jeexut mhm. waaw dama gëm sama bopp nag mhm. te yàlla moo ne fadawu ni istijib la ko ma may leen mhm. te xam naa ni koy ñaanee xam naa ko nag. lan mooy sa assurance. Dieu rien d'autre def lu baax. gëm yàlla nekk ci lu yàlla bëgg basta euh, euh, euh, am ngërëmal waajur nekk ci dëgg laa la wax tout le tout le temps ma répété leen aaya bi aaya bi moo ma jox courage inna alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu wa abashiru ceux qui disent que Allah est notre Seigneur font de bonnes œuvres on envoie des anges envers eux. N'ayez ni ni peur. La promesse de Dieu, bientôt elle, elle sera là. C'était le paradis. Mhm. paradis nag lu lu bëri lay lay tekki. Mhm. man j'avais même des <laughs> des des vigiles yooyu bàyyi naa parce que dafa mel ni dama weddi yàlla. exactement je suis en sécurité. loolu laa bëggoon ñëw ragaluma dara ci àdduna. mais docteur dañu gis entre parenthèses am na sax ñoo xamante ne léegi dañ may dañuy def ay di di di ci man xamuñu ma sax. Mhm. boo leen mënoon dara. di tontante dinaan ay sëriñ lañ boo leen mënoon dara liggéey la ma ma dee wala ngeen dofloo ma man mun naa ko man ku ma sonal ma ma ma éliminé la boo leen xamee dara éliminé la ma mu gën a yomb du ma takk du ma jiw. mais ñoom lay fexeel de. munuñu ma munuñu ma tus arrête ma énervé déjà émission bi demagul fenn. Mm. lu jéggiwul ci yàlla kenn mënu ci man tous. mais dañuy déranger moo tax moom la problème parce que je suis en train de dire leur secret et puis je suis en train de révolutionner le maraboutage et puis la médecine euh, traditionnelle mais ils n'aiment la vérité lu tax ñuy fayloo tikkee nit ñi bu ñëwee si ñoom. Mhm. fu ko teg yow nit ñi bu ñëwul doo nekk di. Mhm. ngay naan ay ticket 2000 ay ticket 5000 wala ay visite privée di fayloo 50 000. dinaan nit ñi mën nga faj fekk dangay fen c'est pas sérieux il faut respecter le peuple wala nga toog néeg di wér di naan sëriñ nga di ñaanal nit ñi alors que yow yaa gën a kàccoor kii ñëw ci yow kooku dafa ñëw ci yow parce que dangaa jege yàlla alors que yow jege yàlla boo boo boo gisee jabar jaamul nga tëdd ak moom fu ñu la gisee yaa ngi nuyu jigéen ñi di wax lu sa yoon nekkul nga naan nit yàlla nga ngay naan sëriñ nga fay ma million ma ñaanal la foo ko teg yaa gën Mm-hmm. te nit ki bu jëloon 10 mille francs may yaayam jël 10 000 francs jënd jënd jënd xaw ma cere sax ak meew may ko ay taalibe alxuraan ñu ñaanal ko ci lay gën a gaaw mm-hmm. man yooyu laa bañ wala ay vision ay seet yàlla ne la ya'lamul ghayba illa Allah kenn xamul lu nëbb ku dul man yow nga naan seetkat bi xam nga nit ñi te ki nit ki balaa nga koy seet la koy laaj tuuram mm-hmm. arrêtez nous sommes dans un autre monde là donc xalaatoo sa apparition ba tey euh, gis nga sëriñ bu baax yi gis nga ñuy seet. waaw sañ nga dem ci xale bi dina seetal ma. déedéet. <laughs> wala ñaanal ma ci nangam nangam. du da ngay tàll loxo rek joxe saadi. waaw ñoo ñoo nekk ci dégg. Mm-hmm. joxuñu kenn witteen ñëw fekk fii ay jalan ay corne ay kori pétaw n'importe quoi c'est du n'importe quoi. wala nga ñëw ci kër nit sax naan sëriñ la ci mat laa lay toog amul sax kër bu baax day luwee sax yow boo mënoon dara kay balaa ngaa laax jaay laax lekk man lu ma wootee maa ngi ci. mais am na ñu naan eh, yow bi du nag du ci dal sa bopp ci ñeneen day gën a gaaw. ah bon waaw c'est vrai kon balaa ngaa génn dama ci sa dëkkandoo nga baalu ko ak ngay kër ceeb jox ko balaa ngaa dem di joxe ay millions pour ñaan laata kay dangaa mer ak sa dëkkandoo juboo leen ba pare. Mm-hmm. yëkkatil cent mille francs nga may la wala nga jënd ration may leen mm-hmm. wala guddi nga xaar ba guddi 22 heures nga dem ci tap sur les portes la nga def ngir yàlla mm-hmm. j'ai dépassé ça. mais docteur depuis nga ñëw ba léegi ci gars yi ñoom ñëpp seen business dafa no am faale wu ma ko dundu wu ma leen sax. ah daa man je cest di dire man je suis un cheval qui porte des œillères. Mm-hmm. je ne regarde ni à gauche ni à droite je ne regarde que devant moi. barke Seydina Mohamed man sama émission sax ko dégluwaat. j'ai même pas ce temps là parce que benn kaddu laa yor keroog dernière émission la ma waxoon il y huit mois la même chose que je parlais loolu laa doon répété mais je suis moi mhm. je suis moi je suis moi il faut rester simple lu ma mënul du ma ci dugg yàlla moo def tey je suis le seul au monde qui traite le diabète à cent pour cent yàlla moo ko may sëñ Tuubaa ko may. le kii kii d'autre traite le diabète. ma ne kii d'autre traite le jabet en un laps de temps comme moi. de 0 à boo amee 0 à 4 ans ah. man je te traite ça. Ah. en en 4 semaines. 4 ans 10 ans je te traite ça en 2 mois 2 fois 4 semaines. supérieur à 10 ans je te traite ça en 3 fois 4 semaines 12 semaines. l'hépatite B. boo ko amee tey boo demee hôpital dañu lay gunge te deewee boo par 6 mois ngay ñëw. tenofovir lañ lay jox antirétroviraux parce que c'est le même virus que le sida man j'étais traité dans huit mois six mois sax mais kii yow monde foo mos a déggee ne six mois laa ko doon fajee mais dama ci dolli deux mois parce que fois ak ak di ñuy génnee benn deret par cinq jours ban médecine ban nit moo moo ko mos a wax ku dul man. man naka laa xamee ne kër bi ak ak foie bi ñuy génne deret cinq jours après chaque 45 jours. Mhm. léegi boo fajo 6 mois bu dee le sang la été infecté bu duggaatee ci yaram bi mun na infecté yaram bi moo tax may naan 8 mois d'hépatite B dans toute la médecine moderne on dit que la colopathie c'est man sama garab benn nga naan colopathie bi jeex kooku moom <laughs> c'est c'est prévalable fii mhm. hémorroïde lay faj fii 200000 la la 100000 di la naan looy bouteille ba nga mois mënuñu ko faj 3 mhm. semaines laa lay faj en 2 semaines nga ne alhamdulilah 30000 ngay fay. plus 15 000 départages graves colopathie. Parce qu'on ne traite jamais les hémorroïdes sans traiter le ventre, parce que le, le mal, il faut le la racine. Mm-hmm. biir mooy nit tout le temps ma wax la ko li ñuy wax dafa mën a faj faj man nëbbutuma li may fajee man ci biir lay jaar. biir bu til ah alhamdulilah sax. de preuve la. yow. man bi ngay bi ngay dee. ba may dee. nga naan bopp bu métti bopp bu métti. ma ngay jooy ma la du bopp bi. ci biir bi la. Mm-hmm. bopp bu metti bu dul wér ci biir la mhm. biir bi ngay déparasité mhm. biir bu tilimee tànk day tànk biir bu tilimee ndigg day métti biir bu tilimee ah. da ngay am hémorroïde biir bu tilimee da ngay am trompe euh, trompe bouchée perte blanche mhm. en tant que femme mun na la provoquer kyste mun na la provoquer fibrome mun na la provoquer provoquer kyste ovaire mun na la provoquer bopp buy métti bët yuy lëndëm bu dee góor nga rétrécissement sexuel éjaculation précoce faiblesse sexuelle xoolal ñii di naan dañuy faj euh, puissance sexuelle di ñuy jël Viagra pharmacie dëbb ko def ko ak ay ak ay médicament mais c'est quoi ça yow boobu dosage boobu boo ko joxee màgget mm-hmm. dina pas calculer son rythme cardiaque il va mourir mm-hmm. avant ngay faj puissance sax ci góor xoolal d'abord ndax il n'a pas des antécédents cardiaques mm-hmm. même man man ngóor sax dama la ko faj fekk raxasuma sa biir éjaculation précoce dama la ko faj fekk raxasuma sa biir lépp daal ku naan sama garab mais kooku gars yi léegi abonnement la ñuy def mhm. je n'accepte pas nag nit di jël colopathie euh, di ko jël euh, chaque semaine chaque semaine non je suis pas d'accord mhm. déjà boo ko jëlee benn yoon c'est fini colopathie que ça soit fonctionnel ou chronique c'est fini mhm. mais il faut pas nga koy def yoonu tool je reste sur la position que les blancs ont dit il faut déparasiter le ventre une fois par trois mois moi je dis une fois par deux mois les blancs sont les blancs Nous, on est nous. On que de la foutaise. Mm-hmm. di baxalaale naanaa bi ci biir est-ce que xam nga day rey góor. Ah, lu koy rey. Ah, day wàññi ngóor naanaa bu ñu baxal day wàññi ngóor. Hmm? ñu bëri xamuñu fii ku fi def benn doo def ñaar. waaw dégg nañ ko nag. Hmm? te xamuñ ne le fait même de toucher son sexe rek loxo bi dafa am venin da lay wàññi pourquoi les gens n'en parlent pas. man su ma nee faj ngóor dama lay indiwaat ba sa 18 ans d'ailleurs une que une semaine ba dama lay naan pas de man je mm-hmm. ay ay médecin lay faj prostate léegi kenn kenn defatul sonde boo ñëwee boo amoon prostate bu tëju boo amee prostate bu néew bu tàng bu am góom bu tëj saw yi buy saw lu bëri boo ñëwee en 3 semaines maximum 4 semaines nga wér. te délai bi benn prostate laa mënul faj mooy borom xeer yi boobu moom mën nga ko. Mhm. opération ngay dem defi. léegi délai bi délai bi docteur doo 4 semaines maximum amul amul prostate c'est-à-dire du weesu c'est-à-dire 2 semaines même tu vas bien même bu dee saw yu bëri la bu dul jabet. Mhm. parce que jabet aussi day sawloo. Mhm. jabet par exemple naka naka la koy fajee. au passage newoon na à partir du 1er janvier c'est 5000. tout à fait je suis désolé. peuple de Dieu je suis désolé. yàlla ma yàlla baal fuy naa rakkaaju naa cinquante mille bi ci reste là mhm. yàlla bu ma bew mhm. cinquante mille bi doy na c'est-à-dire cinquante mille francs bu dee boo ñëwee nag da ngay njëkk raxas biir bi faj diabète bi cinquante mille ça fait soixante-cinq mille bu dee sa diabète de zéro à quatre ans la dee de quatre ans à dix ans c'est deux mois premier mois bi da ngay raxas biir bi jël diabète cinquante mille deuxième mois da ngay jëlaat diabète cinquante mille jël garab buy renouveler pancréas yi mhm. cinquante mille troisième mois tu payes encore la même ordonnance que le deuxième mois diabète non day fekk sa diabète bi jeex na tu renouveler troisième mois bi pancréas kese ngay faj cinquante mille que ça soit clair kan moo sañ wax prix am yi ci télé man loo non c'est pas ça nee naa boo nekkee ci dëgg rek man kaana lillahi kaana allahu lahu mm-hmm. ku nekk ci kii ci yàlla yàlla mooy dëgg yàlla nekkal na c'est tout man mm-hmm. j'ai de la bassesse mm-hmm. je verse pas dans ça docteur kañ ngay pare si ñëw ci centre ville pour pour pour faire quoi fii am nga fi li fii am ñëppan ji te docteur ma ni ñu la ko waxee la fois passée ñu la soxla dafa bari tey jii am nga fii kër am nga fële tey lii rek nga gis sax yow da nga xam ñaari kër la man ba Kolda am naa fay kër ba Kañobo. chez moi rek maa ngi tabax 4 R plus 1 ci benn terrain pour Sëñ Touba. chantier bi musul taxaw musul taxaw même tey fi nga xamante ne ciment xaw na manqué parce que les camionneurs son en grève ñu ngi tabax. te fuute ñu bëri def nañu ay gàllaaj bu bu bu tabax bi àgg. mënuñ ci tous y a des élus de Dieu mhm. rijalun la tulhihim tijaratun wala bimun an dicrillah wa iqaami salati wa itai zaka yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidu min fadli wallahu yarzuqu man yashaa bi xayri hisab sadaqallahu alazim mais donc di nekk ci bopp bi macha allah alxuraan mi ngay wax te fu ñu la fekk macha allah élégance ngay wane costume cravate comme ni ñu koy waxee est-ce que euh, amul ñoo xamante ni tamit lii benn instant tamit. l'islam c'est l'élégance. tout ce qui est beau c'est Seydina Mohamed. Mm-hmm. tout ce qui perfection kooku ki ko yoo xam ne. Mm-hmm. y a la grandeur la beauté la perfection yàlla léppam ñett la l'apparent le caché le caché dans le caché. alif lam mim même bët lu weex li di gis ñu laay bu rëy bi gis ñu laay gis islam iman ihsan sharia tariq haqiq rassemblement séparation rassemblement dans le rassemblement singulier particulier dans la particularité <laughs> yàlla dafa hmm? se connaît par la marché de vécu dans la contemplation c'est la macha allah donc yow foo jógee. xam nga même les blancs disent que pi égale 3,14 et ils appellent ça une hypothèse c'est pas vrai c'est une réalité pi est une abréviation de prophétie 314 messagers de Dieu parmi les 124 000 envoyés chacun a une représentativité divine Dieu a 100 noms 314 divisé par 100 ça te fait 3,14 autrement dit les 22 lettres qu'on a écrites dans la Salatul Fatiha, divisé par les 7 versets de la Fatiha, 22 divisé par 7 égale 3,14. gis nga avant bu ñoon allahu alif bu ndaw bi néewuloon ci kaw bi arobase feeñee lañu def alif bi ci kaw mhm. attention tout est Dieu tout est Seydina Mohamed mhm. am lu lay feeñ dara dara man kaana lillahi kaana allahu lahu boo nekkee ci yàlla yàlla nekk ci yow surtout mm-hmm. Dieu yàlla nag jeex nee naa la Dieu se connaît par la marche du vécu dans la contemplation photo toog xoolal rek lu bul xool leen nga li may def ni appel la wa adin fi nnaas bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli yatina min kulli fajjin amiq yàlla moo ko ne annabi Ibrahima def ko mu ne su ma noddee kan mooy wuyu gis ma fi kenn mu ne yow kay jàngat rek liñ la wax noddal rek lii indi nit ki maa ko moom nodd laay def ñëw leen faju lii nii rajo yi tout ça là c' est depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la guerre des ondes c' depuis le temps du prophète bëgguma dugg ci yenn de yi balaa émission bi di yàq exactement docteur man personnellement je sais que tu es plus gentil que gentil mais des fois dañuy gis ne dafa am ay nit yoo xamante ne dañuy gis ne a nerveux moo tax sànq ma leen laaj na la amul lu nekk yow. non nervosité c'est que man je ne triche pas nitu yàlla dafa mel ni seetu ku ñuy gis ci boppam. Mm-hmm. quand tu reçois 200 personnes par jour il faut xam ne cent personnes yi ñuy nit 50 yi ay hypocrite lañu 20 yi ay égoïste lañu 10 yi ay seytaan lañu. Mm-hmm. voilà donc nag ku ñu gis ci boppam. Ah, loo ñëw rek xam nga même mu ngi mel ni jëm ci yàlla rek <laughs> ñii dañuy yóbbu pot tànk ñii paan ñii fût mhm. ñii cylindre mille litres mhm. ragaluma mbindeef boo ñëwee nag si man moom bu ne même bu dee président nga tu es mon disciple. Mhm. te da ngay rag xaar. ah personne la priorité chez personne. si ma ñëwee seen bureau man damay rang ah. et personne n'accède chez moi sans être fouillé il y a partout à ah parce que ah. xam na <laughs> dofuma ci mën mm-hmm. nañu indi sax drop mm-hmm. def ko sa suuf fauteuil mm-hmm. après ñu dem yoole la quand même je je je suis pas de la dernière docteur ñu laa tuuti ci euh, yenn yi avant ñu ñuy tëj émission yi euh, lu ci mel ni AVC nga sànq sànq ñoo ngi doon wax euh, ci beneen feebar bu gënoon graaw ñëpp xam ne da da lay téye carrément doo ba ba doo mën a mais ñun gis nañ ñoo xamante ni def nañ témoignage xamal ne ñu yow yaa leen faj ci loolu alors. AVC am na boo xam ne mënu ma ko faj. mais donc doo rus doo rus di wax mënu ma faj. ci am na ñoo xam eh, n'a le monopole du savoir AVC par exemple war na ngelaw seetaan kooku moom bu dee seetaan rek wala rab kooku moom macha allah trois semaines sax mu jeex xam nga ngelaw seetaan da lay ëff nga paralysé. Mhm. mais docteur tubaab xamul loolu lay naan tension wala AVC. AVC tension aussi mën nañ ko faj sa dépend ci durée bi mu am ci yow ñenn ñi. 4 semaine ñenn ñi 8 semaines ñenn ñi 3 fois 8 et 4 semaines ñenn ñi 4 fois 4 semaines ça dépend am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax duñu mën a wax en une semaine ñu wax dem leen dugg leen ci YouTube Diallo Abdoulaye vous allez man même mon jabar allez-y voir Noa Cissé le professeur Noa Cissé de Ziguinchor qui a fait des témoignages son jabar tout le monde le connaissait ah, man sax gëwuma ko woon parfois ba man ba mois dernier gëw ma ne damay mën a faj jabar résultat yi ñoo bëri rek ma ne ah kon li yàlla la <laughs> eh nit mënul dara lépp yàlla la c'est que am na nooy waxee rek waxu sant yàlla ku sant yàlla bakku te yàlla moo ne fa da feraxto bon sa buy laar bi feraxo loolu dong ok fibrome par exemple mm-hmm. dañ lay opère mu ñaata opère mu ñaata man je te traite 4 mois c'est fini ah ça ci diamètre ci épaisseur bi maraboutage par exemple man ci ñeenti wala juróomi laa def maraboutage ku soxla kiis pour xel neex ah, parce gis naa ne jeunesse bi jàngatuñ mm-hmm. internet rek mm-hmm. ma defal leen kiis li ñuy laaj ay nag man 10 000 laay laaj wala xale jigéen yi mënuñ fexe ba am jëkkër ma jox la benn mariage 10 000 ngay fay. mariage 10 000. oui dem leen sëy. ah moo gën njaaloo bi. baaxul ci réew mi. Mm-hmm. balaa tsunami di fi am. il faut il faut être c'est-à-dire il faut être un homme d'État là où être mhm. cest dire gouverneur Ziguinchor je crois c'était euh, Guèye Diouf mos wax ci benn euh, manifestation militaire mu nekk chacun soit un homme d'État chez lui mhm. ça fait deux ans que j'ai entendu ça boobu léegi noonu laay doxee xawma ko nag je fais pas sa publicité mhm. président Macky Sall wax na ko ci euh, nouvelle année bi bi muy bi kii euh, non pas ci discours bi sax ci waxtaan face à la presse mhm. nee na pourquoi ñun duñu gëm suñu bopp on ne valorise jamais ce a alors que tubaab bi bu lay jox sax yàpp da naan yàpp bi ci vache bi jógee na nga jox ko valeur mais ñun loo xam ñu neen xamul dara benn waay nag neewoon na koo mhm. gis nga naan du waaja billaahi waaja dina romb doo xam xam nga même vous même ces ces nouveaux là ils croient peut man tam ci door yi la bokk parce que ils me connaissent mm-hmm. ah, parce que dañoo tam gis dóorkat yi mm-hmm. ñoom daal la ñuy enregistré bu ñu paree jël seen xaalis dafa seen yoon ils font le travail mm-hmm. alors que c'est pas pareil man su may communiquer sax da ngeen ma war a fay man RFI bu bu may interroger daf may fay ah. Washington DC bu may interroger daf may fay parce que les gens ont droit à la communication communication dañuy fay man xam naa ko e je connais comment communiquer. Je connais qu'il y a ce qu'on appelle la fascination. Je sais qu'il y a ce la maturation et, la saturation, je sais. Mais il n'y pas à négocier. Tu veux être multimillionnaire, même, tu payes. Tu ni le deuil. Montre ça 2 grammes. Mais millionnaire, il y a Multimillionnaire. Millionnaire, c'est quoi Millionnaire, c'est face à pas de milliard, c'est face à pas

tension nag hernie discale nit da koy am ñu ne ko nerf sciatique je suis pas d'accord hernie discale beneen affaire la nerf sciatique beneen affaire la parce que neer bu demee ba coincé ak neer yuy métti yoo xamante ne jógee ci ndigg bi dem ci fes ak ci hanche yi vraiment métti bi bokkul nature bi bokkul nerf il faut nga xool nit ki ba xam par exemple ci cinq noyaux yi ban la ci euh, as pathologie bi nekk nga doog ko mën a faj nerf ci gàttal bon donc dañ koy faj eh, hernie discale L4 L5 C2 C3 C4 yooyu yëpp dañ koy faj eh, arthrose dañ koy faj rhumatisme dañ koy faj polyarthrite rhumatoïde aussi dañ koy faj boo boo demee ba yax yi commencé déformé hmm. boobu nag moo xaw moo gën a xaw a métti tuuti boobu ça prend un peu de temps boobu boobu même bu à l'hôpital moderne par exemple ay ay corticoïdes lañ lay jox mais ñu on te soigne bon euh, li may li may li may li may wax nit ñi daal nañu moytu constipation feebar ndey feebar yi constipation la gis nga boo amee constipation aiguë

mais ça n'a rien à voir aussi boo amee colopathie colopathie moom da nga koy dindi mu deñ dans la médecine moderne nag nee nañ di wér dañ leen naan euh, dañ leen naan euh, régime à vie nee na la man je te donne le médicament il coûte 15 000 benn yoo nga koy naan colopathie bi que ça soit fonctionnel ou chronique ça finit même jour en 8 heures de temps c'est terminé colopathie mooy origine hémorroïde du la faj hémorroïde fajuma colopathie colopathie day indi rétrécissement sexuel faiblesse sexuelle parce que yëpp bokkul rétrécissement sexuel faiblesse sexuelle impuissance sexuelle éjaculation précoce trouble érectile yi yëpp bokkut bu nekk ak garabam tànk yu métti tànk yu tàng doo astafurlah tànk yu métti pas colopathie colopathie tànk yu tàng la yéen regarde par exemple yow yaa ngi def pieds nus ci sedd bi nii sur les carreaux ci mets pieds ci tu exposé au rhumatisme Ça ne se fait pas. Ça fait pas. ndigg buy metti arthrose cervicale arthrose tout court arthrose par exemple kenn mënu ko faj fajul siti siti bi boo ko amee mooy woolu yokk wi su yokk yi woowee nag ñu ne la arthrose am ñoo xamante ne seen yax yi genoux yi sax day laante bu kenn opère bu kenn jël corticoïde ñëw leen ma faj leen c'est simple arthrose 40 000 la ordonnance bi en trois mois quarante 000 fois trois je suis précis dans ce que je fais pour les gens qui sont à l'extérieur parce que man samay patients yu ëpp extérieur lañu nekk patients yi nekk extérieur nag bu ma kenn yónni xaalis bu kenn yónni samay employé xaalis man du ma yónni kenn garab tant que amul intermédiaire yow yaa yónni sa mbokk mu indil la bu la neexee nag jaaral ci whatsapp bi numéro yaa ngi noonu ñaari numéro yi whatsapp am nañu whatsapp boo demee secrétariat ñoo lay tontu ñu xamal la prix yi bu la neexee wax leen li nga bëgg a faju ki nga yónni sax mën na bañ a xam na ñëw secrétariat wax nañ la prix yi xam nga ñaata ngay fay kooku dañoo indi xaalis bi ne si ne par exemple fii fi moo ñu yónni bu ñu tappee whatsapp bi fii fii fi euh, dinañ xam li la waxoon ñu jox la say garab bu ñu explique la par whatsapp wala boo boo boo si jotee nga woo ñu whatsapp ñu expliquer la le 77 203 0804 amuloon WhatsApp ñu bëri dañuy naan duñ ko jot duñ ko duñ ko jot c'est que dafa amoon WhatsApp ñu supprimer WhatsApp bi pendant 7 mois yow boo wootee wala boo bàyyi message da nga foog ne gis nañ message bi c'était supprimé léegi lañ ko renouvelé waat WhatsApp bi 77 959 28 09 bi moo amoon WhatsApp permanent en permanence man nag bi ma yore 203 bi boobu maa ko yoroon en ce moment ma dindi WhatsApp bi parce que je peux pas recevoir. énormément de patients guddi gi ngay bind ay saafara rab wala ku la ne par nit bu ñëwee ne ma papier extérieur bëgg damay naan demal ba demee parce que guddi gi laa koy bind boo bëggee jub ak sa jëkkër wala sa sa njaboot juboo kooku guddi laa koy laa liggéey mënuma nag di recevoir la journée di bind guddi bëgg encore ma nekk ci téléphone c'est pas possible il faut nit ñi comprendre aussi que ni ngay gisee nombre de vues 80 vingt vues il y a 80 000 appels il y a 80 000 messages nit njaay mënu ko il faut que les gens aussi soient compréhensifs nous on est là pour les gens c'est les gens qui, qui ont fait de nous ce que nous sommes on se respecte mais faut pas brutaliser au-delà de 23 heures on n'a pas le droit d'appeler les gens nit ñi dañuy woote ba 2 heures du matin il faut avoir un langage courtois yow adresse ngay laaj lu ci jar na nga def naka bu njaboot gi naka doom yi nag yow da nga xam ndax dañoo am njaboot yow doo laaj rek la laaj parce que maintenant le téléphone est facile même les coqs ont des téléphones quand même il y a on per on perd du temps fi ngay waxee téléphone ya y a dix autres appels qui attendent hmm? hmm. Et euh, regarde les, les regarde nit ñi may nit ñi chance ci AVC ce boulot là mercredi laa koy def damay sonn ku ñëw sama kër mercredi daf may yërëm les mercredis je suis obligé de porter du rouge effet yooyu nag man du ma tuur deret man du laa laaj kenn sarax ci man lay dal j'encaisse il faut que je nerveux du ko tey je su sous tramadol depuis trois ans garab boobu ñuy wax tramadol bu manqué pharmacie rek man la ñu ma koy naanee dafa jéggi dayo je peux prendre xam naa ay médecins ñu may dégg <laughs> man nag je suis libre hein je suis libre conscience tranquille j'assume ce que j'ai dit damay naan ba 10 comprimés par jour maa tey sama yaram la. sama buñ ko bàyyee wala buñ ma buñ ma teree wala buñ ko léegi buñ ko indeetul man mën naa dem ci alxuraan bi est-ce que xam nga alxuraan moo wax la benn secrétaire boo gémmee say bët nga jàng Faatiha trois fois Lixlaas trois fois nga def ko addi yent bi sallallahu alayhi wasallam nga ubbi livre bi nga lim sept page septième verset bi lu mu tombe rek aaju boo am nga def ko 243 fois sa aaju day faju wa nunazzil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin nous avons fait descendre en ce Coran flux de guérison et de miséricorde. Et pour ceux qui croient. Mhm. Voilà, ils étaient Il a khasara, mais une perdition accrue pour ceux qui n'y man jinn ci ci alxuraan laa koy fajee papier maraboutage bi ngay def par exemple ci papier extérieur wala mariage wala kiis wala bon sang cat moom garab la wala blende la yooyu yëpp ci alxuraan laa koy defee même ngóor aussi am na ay ngóor yu parce que am na ngóor par exemple bu ñu la takkee xalam man ci alxuraan laa xam nga sànq maa ngi naan éjaculation précoce rétrécissement sexuel euh, faiblesse sexuelle impuissance sexuelle bokkul takk xalam aussi bokkul ak yooyu boo mënatul am jàmm ak si jëkkër guddi ma ñëw liggéey xam nga loolu jaamu yàlla la te dama la ci laaj lu ëpp vingt cinq mille njaboot bu bu mënul jëboo dama ci laaj lu ëpp vingt cinq man benn affaire bu cher laa yor mooy boo bëggee am alal loolu nag moom mun nga lim 3 millions nga toog sama kanam moom du ma la ko may su ma xoolee am na benn bouteille ndox mooy teg sama kanam su ma gisee ne vraiment ça ne te va pas bu sensé bu boo ma joxee 10 millions dama la ko jox te gëw ma ni nit mun na toog sama kanam am lu ma amut ci Sénégal gi bii bu dee bii rek CFA bii alhamdulilah macha allah. waa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla dafa lay wax la xam nga sama sama chante préféré Youssou Ndour la keroog wax na ko lim na li ko yàlla defal loolu ayut de sant yàlla ku sant yàlla bokk man ñaar laay déglu dib dund gis lu mu woy man la woyal lu mu woy man la woyal maa ko fan boo ko xamee seetal ma ko nga ne ko nga ne ko je l'invite à un dîner waaw dib moom bëgg naa ko. lan moo lay ah, parce que li muy li muy bind yëpp déjà woy na yaayam. Mhm. mois j'aime ma mère. te lu ma yàlla may sama sama yaay la. billaay defal leen seen ndey. yàlla nee na seen ajana mu ngi ci seen peggu ndey. wax ne mu mel nit ñi les bandits la wax na ak ennemis yi ennemis dundal man ennemi dundal rek chaque jour sa xol di gën baax baax doo mën ci mën tos tarfatay je demande à Dieu ñi ma bañ yàlla nañu gudd fan chaque jour ñu gis leen naqar rek gudd leen fan mm-hmm. ay ah oui maa ngi naan nit ñi nag man li ma mën mooy eh, nit ñi nañu jaamu nañ jaamu yàlla en tout cas dans le Coran et Dieu c'est Dieu qui a tout gis nga wax naa benn jour nee naa ne yaa basitu képp koy def dix fois pendant quarante jours successifs taggoo nga ak pauvreté tabaraka alladi bi yadihi l mulk tout court 6666 fois le premier lundi di mois lunaire boo ko defee doo manqué loise doo manqué dépense mais une fois def ci ci ci mois bi ñii di wird latif du latif comme ni ñuy waxee latif du latif du taa latif la ñuy wax latif tout court latif 129 c'est bon doy yàlla latif mel ni que non da ngay xam yàlla yàlla soriwul moo la gën a jege sa vingt juillet nga ne yàlla latif yow yaa ngi nii toog ma ne eh fifi <laughs> wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaxi bayna dalika sabila def uh, ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay nu ñu koy waxee ay naafila guddi listixaar jarul ngay dem ci nit na la listixaar yow ci sa bopp mu nga listixaar sa bopp moo jox ki ñenn sëriñ yi di listixaar mosuñu gis ba am benn vieux néew na ma am na 76 ans mosul gis listixaar man maa ko gëgganti ci naka mooy booy def saxaar boo defee 8 boo jullee shafa bul def 8 heures mooy benn raka benn rakkaa bi mm. boo ko defee boo defee listixaar doo gis dara dangaa tëj lépp yàlla texul samiu basir la même 21 fatiha rek boo ñëwee ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga julli ci yenente bi nga laaj sa soxla àggali faate nga baamtuwaat mais toujours répéter la même rek xam nit ñi ne nañ mën nañu seet ñaata émission laa doon def man Kolda RTS Kolda laaj leen Sega Pam wala le directeur kan ñaata émission laa doon def tey doon doon lundi ma ne suba mardi euro million lii mooy génn du dañuy lekk lu xaram rek parce que 1000 francs jàmbur yi ñu lekk xaraam la di mm-hmm. seet xaram la di yéen bi moo ko wax du man ah moom da ngay lekk lu xaram kay seetal euro million cagnotte bi lu gën a tuuti tuuti 20 millions euro la ça fait 1 milliard 356 millions yooyu yëpp dama ko doon def toog leen di ne suba li mooy génne euh, kii euro million wala euh, méga million wala ma ne euh, la naa loto Italie lay génne mm-hmm. veille de vendredi noonu laa ko doon def parce que mardi et vendredi lay am mais man maa booyatu le tilim dóorkat laa woon maa daqoon lekk lu lewut fii mm-hmm. laa doon mais bàyyi naa ko alhamdulilahi rabbil alamin ah, bi may dóor sax amuloon barke aw ma ci terrain aw ma ci kër aw ma ji jabar bu ci takk sax ma fasel waaw waaw parce que li li ko tàkkee xaraam la gis nga léegi barke ñëwoon am na xam naa ñu baax ñi mel ni yéen mm-hmm. ça déjà c'est une richesse mm-hmm. du tey am ngeen ma am naa leen mm-hmm. lii richesse la tey j'ai des sœurs j'ai de nouveaux frères c'est fierté pour moi yéen aussi ma doon richesse ci yéen ku ci soxla suba cinquante mille ba ma woowee nga fa nga fa duma ko mi xam naa la je suis obligé yàlla tamit noonu la mel boo ko xamul boo ko ñaanee lu mu lay may yow boo dajeeg nit nga ne ko xee may ma cinquante francs du la may mais boo dajeeg koo xam bu la nee ma dépanne ma foofu cinq mille da koy jox yàlla tam dafa ne xam la ma balaa ngeen may jaamu nañu liggéey nag bàyyi caaxaan bay triandé qu'on soit honnête dëkk bi ñun ñëpp ko moom ñun ñëpp bokk nekk bay. important yow waxtaan ak yow xam nga ni du jeex <laughs> ndax yow li nga war a wax macha allah dafa bari xajul ci benn émission mais en tout cas lu ñu mën a wax mooy Sénégal yi xam nañu te yemoo Sénégal ndax nee naa la àddina bu ñu demee ba France 24 bi def investigation ci yow sa gëmm ji. man ay ay ay ay ay américain ak ay européen ñooy ñooy jël fii ay ay ay centaine de kilo sama garabu diabète ak hépatite voilà ak sama samay garabu nerf sciatique mhm. hernie discale polyarthrite du matin mhm. fibrome bi sax léegi dañ koy jël garabu colopathie bi 400 mhm. sachets am na am na ñu abonné cent sachets 6 millions parce que quinze 000 laa koy chaque mois ñu indi 6 millions jël 400 sachets dañuy foog ne nag nañ xam garab bi billaay maa leen gën a muus xam nga man samay samay garab ci mbuus la nekk man du ma def ci bouteille ndox so soo ñëwee fekk ma def ci ay bouteille danga xam ndox bi ma ko defee ndax baax na da nga xam ndax dama ci def la def sax boo ko naanee li ma la wax nga def mm-hmm. moo war a defaral boppam garab et puis boo defaree ba pare day day am date d'expiration dama lay jox sa garab nga defaral sa bopp te garab bu ne dafa am tooke il faut ñu baxal ndox def ci mm-hmm. te dosage dafa am solo ñun dañoo jàng dosage man amul sama garab amul jamais jamais nga jël sama garab am problème dara est-ce que xam nga garab bi may fajee pancréas bu may renouveler pancréas day renouveler rein je te jure une grande autorité de cette république là daaw naa ko fa jabet bi mu demee docteur tubibam France dafa ne non gëwuma gëwuma ne jabet bi na mu def kii yëpp bi mu ko waxee kii moo moo moo ma faj mais dafa ne xaaral ma set ndax yàqul sa rein yi bi mu demee excusez-moi, putain, tu as, tu as les reins d'un enfant de 10 ans. waaw. mais man ça ne veut pas damay faj rein de mënuma ko xaw ma. mënuma ko xaw ma déedéet. xaw ma rein mënuma faj bët. mënuma faj nopp su ma mënuma faj bët faj sama bopp. <laughs> mënuma faj nopp mënuma faj bëñ. leer na daal moom li ma mënul ci dugg. man li may liggéey c'est pour dormir tranquille <laughs> bu dee nag damay am xaalis nag wax dëgg yàlla di daw. di tëj bunt man du ma genre ñooñu de premier visite bi da ngay fay quinze mille consultation deuxième jour boo leen bay gis loo leen gis man du ma kooku mm-hmm. man mes portes sont ouvertes sama cabinet samay doom samay jabar ñoo ci nekk mm-hmm. parce que ragalu ma la may def boo ma saaga dama xam ne xamoo ma boo ma xamoon doo ma saaga mm-hmm. jalousie maladive rek dafa am nit ñi dafa am seytaan ñoo xamante ne ku ku bëgg lu baax ñoom bëgguñu la kuy def lu baax bëgguñu la kooku C'est le problème.